bu bu gars yi di répété. barke alxuraan xam nga rek ah. la ko waat daal jàmm la rek. Ah. solo ase waaw yaa ma gën a ah, nga dugg ci arène bi sa premier combat dans l'arène nga bëri ak kan. sama premier combat mm-hmm. mbooloo. moom nga daje. fan Mouhamadou Diagne ñëw na bu doon xoolal. 2000 feebar naa si trois fois. waaw. avant combat bi. barki alxuraan nga feebar. booy am ñaanam ñoom. bul bul tooñ terrain bi bul tooñ. sama fils la bul tooñ. dañuy déggante. tàgg rek rombante nañu. bilaay wallaay borom baax la dañuy tase laamu di bëggee dëgg. barki alxuraan moom nga njëkk a bëre. ah njëkk a bëre laamu ji métti. est ce que mën nga ma dellu si waat film bi bi arbitre sifflé lu mu tudd bi arbitre sifflé abi dafa suivre mu dox sama ko tëm mhm. mu dor ko gauche droite ni doorante ñu ah. daw jappante ni mu wétu mo mhm. ma mel ko koy mbot mhm. comprendre fekk tankam ba ci sama bir ya yi ni ma kal ko nga kal tank ma kal ko fa ka tank ci suuf tok ci kaw nga daan boulon bu kër massar nek un espoir wa jo xamne gaay dañ ko wol duñ ko bayyi fet ala ci kër massar mbolo nga bëre mom daan ko sa deuxième combat nga am kal Elton Junior. Elton Junior ban. bu kii jamono bu équipe école bi Balla Gaye. école bi Balla Gaye moom nu mu métti. moom nu mu demee. booy <laughs> dem maa tax booy affaire bu sérieux man laa bëgg comme man faale naa ko. Uh-huh. barke yàlla. mais boobu da ngaa sàcc. booy dama sàcc parce que affaire bu sérieux ma dóor ko booy bi daw sonn ma ma koy dóor tànk ni uh-huh. mu mu raw woon noonu. Uh-huh. yaa ngi faral di lool. foogee woo ko foogee moo ko. noonu laa ma dem woon ma noonu. dóor sama épaule la. mais boobu yow xamoo ko bi nga koy jël xamoo ko. xamoo man man je le connais très bien. waaw ah, mais kooku daa toog dafa mu Pambaay ma part rek stade Ndiarème beneen affaire la. noonu fa demee mais sa première défaite. Hmm. yaa ko jëlee ci Elton Junior. Elton Junior waaw kon dañuy baala rek. waaw sa troisième combat nga am hmm. waalo bañ na. waalo bañ na. waalo bañ na bu école te Balla Gaye. Géejawaay

bi at bi sifflé génn sa diggante ak Mor Ba ni mu demee. boobu ah maa bari na woon. c'est-à-dire histoire bari. waaw nu mu demee bi at bi sifflé. at bi sifflé. waaw. bon yow tuurante. waaw bi daal soxna sama temps. Hmm. affaire boobu laa ko jaarale dama ko collé. yaa ngi rappelé loolu. ah da nga collé sa waay. waaw collé dama daal soxna sama temps nii ma collé ko. Uh-huh. gars yi ma àndal ma am bàyyi collé bàyyi collé. ma hmm. leen nii. Hmm. Ah, ma collé ko daw dóor ko liberté. dóor ko tànk wala ko. dóor ko tànk. Ah. Euh, da nga mën a bëri. ah man damay tàngal rek. non non non non non non non et aussi bu yow kese dama naan ginnaaw raay. dëgg la Pikine ginnaaw raay. Mm. du ma la ne amul cuune mais man personnellement gisuma fa cuune. parce que seen koñ boobu yow daam Zoro Ëmma Sokku Zetli ba ci ñoom bébé Zoro ñoom Darzo. waaw euh, ñoom ñoom Paa bi Sokku mën a booy ko mën a bëri. ñëpp noonu la fa demee kay. parce que aussi da ngeen juddoo koñ boo xam ne làmb dafaa dund. parce ah, que koñ Eumeu Sène. waaw dañoo judd si benn koñ boo xam ñun ñëpp ay ànd. Ah. loolu gën a garaaw secteur boobu. surtout surtout surtout. ndeysaan di demandoo fu ne. Ah. barki Rasulullah di bokk ak di def lépp. billaay wallaay. mais mais aussi euh, Dame ak euh, ak euh, Sokh. Mhm. ñoom ñoo meloon comme ay frères. non ay gars lañ. nekkoon comme ay frères. waaw foo gis Dame gis Sokh foo gis Sokh gis Dame. ñu dem ba benn instant su ma jum ñoo bokkoon sax benn néeg bu ñoom Sokh sama néeg lañ daan fanaan ginnaaw raay boobu sama papa lay dund. dégg nga sama papa yaatal na ku ne moo sama yaay. barke alxuraan. sax ñoom. sama grand frère bi gaañu am na ko yàlla yore. ñoom soox moom lañ daan ànd avant ñuy nekk mbër ñoom xaj na sama mag boobu sax mu waroon dugal julli si ñoom comprendre nga doon leen yóbbu jumaa di waaw c'est comprendre ba yàlla def li muy def tey nag c' parce que alxuraan aduna tërëdi rek waaw ah, mais bu yoon jeexul waxu si lu jeex waxu si lu jeex waxu si lu jeex parce que li gars yi naan rek daan ci suuf tàng ci suuf yàgg yàgg benn instant bi nga jógee ci wàllu bañ la ci nga bëri at ci nga jël euh, sëdu falam sëru Falaam waaw. ci ci nga jël sëru Falaam. Ah, waaw boobu stade municipal bu bari. boobu am doole. non ah Iba Mar la. Ah, ah boobu Iba Mar la woon. Brise Amère mooy. ah Brise Brise. booy booy ponkal. Brise Brise bu sàkku xam-xam wax nga dëgg. waaw booy doole. wax nga dëgg Brise bu sàkku xam-xam. c'est booy wax noonu sax bëri doole. ñeme entraînement. laa mujjee noonu la Brise de Mer bu wékki di sàkku xam-xam. unité 18. te laa may laa fi woon. maa ngi fa woon. gis ni ma dugg si woon. Ah, sama taay xam nga dama ko baax noonu rek laa sóoroo. bàyyi ma ci xel. cinq jours la am. contact fee kalaat. Mhm. c'est doo ko limal man li may dund mu sama famille rek mu xam. ok barki alxuraan. Uh-huh. damay am combat nii mais xam nga rek nekkul lépp la ñuy wax. Mhm. ay métti ma da ay affaire yi. il faut que koom. waaw kay. man damay bës. donc comme fu bagage yi di jógee. maa ngi leen dama woon bëre. yaa brise. barki alxuraan. tey mais nag da nga si brise loo la laajte. loo ma laajte moom mais ma ma am lu daw sama yaram barki alxuraan ma teg électro bi sànni. billaay wallaay. ma ne kii daf may rey wala ma rey ko rek. billaay wallaay noonu la fa demee yàlla may ma ca ndam. non bul sàcc film bi daa bi ciblé. daa bi ciblé. waaw mais booy dama ko ñam nag. mais mais moo la moo la. moo la non. waaw léegi kooku xanaa kay boo ñamante yow nga ñamante ko xam ne. affaire affaire wokala la mais ko xam ne moo la sut moo la non. affaire wokala la waroon jaay. ji koy bànn nga ko jaay boo koy dóor góos mu daw mbéb ma dóor ko góos droit. kanam bi commencé néew. barke Rasulullah damaa yaa kanam bi. billaay wallaay. dóorante. dóorante kan kan daw songu. ma xam ne fii su ma fi duggee tey. mën na ma ñoo yu ma toog.

dara la tey xëy na yàlla moo turoon loolu rek. non non non non non non bu ma naxee noonu loolu loolu lan la exactement expliqué ma. parce que yàlla bon parce que déjà la plupart du temps mbër bu ñu la ne diw moo la. loolu xam nga xam nga xam nga dina jéem a daw daw waaw. suñu course. am na solo waaw. maa ngi koy sant di ko gërëm quoi grand bu baax grand bu kóol. Ah, ah, ah. ku ñaax a ñaax. moom famille yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm. ay ñoom Vieux Touré. grand frère am xam sa cosaan. Vieux Touré ah ñu ma tudd ñëpp. Mhm. nañ ma jéggal quoi. xaj na xale yi faatu rek. Mhm. maa ngi sant nañu turoo. sama kanam bu baax la turoo turoo turoo ma ko turoo. ñoom li ne si man. Mhm. ñoo ko def si booy yëpp li ne bi ñoom la. Mhm. barki alxuraan. mais mais raad bi raad temps temps ak koo xam ne moo la moo la. bi. ok mais am na loo xam ne tamit fit la. waaw am na loo xam ne tamit fit la moo tamit. fit bi fu mu jógee. fit bi xam nga rek tontu la ak judduwaale quoi. judduwaale booy booy jënoo boy dañ ma koy wax ne nañ ma ku juddoo ginnaaw raay mo ragal. mo mënoo ragal moom xamoo rek. Ah, mais mais jour boobu da nga bëri xeex. waaw ak sa way ba mu blessé. ñu hmm. jël jox la victoire. nga enchaîner deux victoires. avec sa palmarès de 4 combats 3 victoires ben défaite. nga jógee ci avancé. par la suite ci nga jël cette euh, faram. nga enchaîner deux victoires de suite. daan walu bañ na. ci dans l'espoir de sa ko xam-xam euh, brise. ñu ne la kaay gars yi jox la setu Falak. alors. waaw setu Falak Iba Mar la woon. c'est-à-dire Iba Mar waaw ah. loolu Iba Mar la woon. Ah. yàlla may ñu ci ndam. combat bi taxaw. waaw. boo ma ne ma grand bi ma ne ko naa mu ne ma xam nga amul frein ma ne ko waaw mu ne ma loo ci xam ma ne ko day bëri day xeex. boobu moo la wax loolu. waaw man man la woo di ma laaj. Ah, xam nga amul frein ma ne ko waaw xam naa ko bu baax. mu ne ma loo ko xamal ma ne ko day bëri day xeex. Mm-hmm. mu ne ma moom lañ ma jox ma ne ko demal préparer am nga combat. Mm-hmm. boo am loolu. bu ma man sax xam rek man des fois si xam nga li sama problème man. bañ a toog bër. moo waral may jël yenn. jël yenn combat yi ok. billaay wallaay te xam nga rek damaa njaboote quoi. Ah, ah. lépp lu am rek waaw dama koy dépassé sama famille. Ah, barke alquran. moo tax avance bu ñëw rek dama koy jël. dëggantaan waaw kay. jour ji yaa ngi seeti fan bu mu demee. jour ji ma waaj ko séantiru lañ njëkk a rafet booy bi dafa weeru ngaaxa. Mm-hmm. xam nga laa ma amul sponsor anam. Mm-hmm.

man sax a fois damay wër turu nit. Ah. billaay wallaay su ma ko amul garaaw. ah man de woo na ma amul fenn mu tudd ma ne ko noonu du ma joxe turu jàmm. des laa dem bëre. xam am na nit. su fekkee jàpp rek su a am na su fekkee dañuy wax si cadre jàpp

waaw daal moom. même dawam sax moo gënoon gënaaw quoi. te gën daal. daw na de mooy daw rek war na waaw. par la suite. jàpp ko mu daw génn saako bi toog na ma benn cinq minutes ñëw. ba mu dugg si waate. ma doogoo nii mu ne nii ma daw jàpp ko. ma jàpp ngeemal nii. comprendre nga korosé loxo bi nii. mu yëkkati poxtaan bi ma tël loxo bi. dugal sama bopp. zongale ko. zongale. moo ko zongalee demi zongale laa ko def rek dóor ko. wàccee mu rëbb. mu rëbb.

los